jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi ak uh, Yaram Maar Yaram Maar Touba Maar mooy suñu gan tey ci rajo Futur Media buñ ko doon présenté mun nañu wax ne ku amoon jàngoroy coronavirus bi la te ñu koy présenté comme ki ko fi njëkk a dugal ci réew mi moodu Modou bi jógoon uh, Italie dugal ko ci réew mi buñ ko joxee mun ñëw ba noppi mun nañ ko laaj uh, sa parcours ah bi nga ñëw ci réew mi naka la demee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, maa ngi nuyu Sénégal euh, nuyoo bi nag maa ngi jiital Cheikh Mountada euh, Mountakha Bassirou Mbacké di ko siyaar di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te ma di nuyu Serigne Matar Sugu xalif Serigne Jéeri Waadaan na fi yàgg moom tamit te ànd ak ah, di ñaan yàlla Sénégal yàlla def fi jàmm dolli fi jàmm ba ñëpp am jàmm naka nga. yëgee sa yaram ne am nga jàngoro coronavirus. Euh, ni ma ko yëgee day euh, dama départ Italie euh, vendredi le 6 le 6 mars maa ma fay jógee booba yaakaar naa ay vers 17 heures et demi mais musuma sentir ci sama yaram ni am naa jàngoro aw ma woon benn problème tamit bi may ñëw. ndax ñëw naa jël air Maroc bi may ñëw naa ba egg sama kër bi may ñëwee d'abord sax Maroc bi ñu defaree test dañ ne ok jàll ñu jàll ñu ñëw aéroport Sénégal ñu defal ñu test euh, ne ñu ok mais bi ñu ñëw école dañuy jox benn carte ne képp ku ci yëg sa yaram tàng na wala lu lay metti na nga teel a dem woote ci numéro yi wala nga dem hôpital man bi ma ñëwee def naa fi vendre euh, samedi ci guddi laa egsi samedi dimanche lundi ba mardi la sentir ne sama yaram mu ngi metti ma sentir tàngoor ci sama yaram tàngoor bu metti ak euh, mettitu bopp euh, bi yooyu amee nag laa xalaat ni man naa dem hôpital jàpp mu sax ni loolu moom war a dal parce que man sibiru laa ko tegoon wala tooy ak coono bi ma am ci yoon wi lu ko war a voyagé loolu ma parce que quinze heures de temps loolu moo ma jaaxaloon moom moo taxoon ma jàppoon ne tooy la waaye nag euh, yàlla mi dara tëwul ma dem. Euh, santé bu Daaru Marnaan. centre santé bu Daaru Marnaan fekk fa euh, docteur Sylla ku baax ku ku yaatu ku am ku xam liggéeyam te man ko te man liggéeyam tamit ndax wax dëgg yàlla kere ba mu ñëwee. toog waxtaan ak moom dafa ne ma ah foo jóge man ne ko man de Italie laa jógee ci semaine bi mu ne ma ah léegi comme yow fa nga jógee am na jàngoro yu mel nii nañu xool ba xam euh, euh, lu mu doon daal daal di may dalal dugal ma ci chambre bu baax macha allah euh, toog di waxtaan man dalal ma bi ma toogee bi ma yendu fa fanaan mu ne ma dañuy def test bi test bi man maa ko yóbbu léegi dakaar ñu xool ko lu ci am nañ la ko wax suba incha allah man ne ko amul benn problème lu mu ci mënti doon tamit yaakaar naa ne feebar moom feebar la rek dañ koy faj dañ koy faj mu ne ma amul benn problème bu ci am leen looy tiit wala lu ci xalaat léegi nag euh, ma tëdd ma nekk fa ak sama soxna ba ci le lendemain euh, mu xëy ñëw biñ toogee ba ay booru 10 heures 11 heures mu ñëw ne ma euh, test bi dafa positif wane ne da nga amee corona. ma ne ko ah boobu non wax dëgg yàlla yàlla dimbali na ma nag wax musuma ci tiit. loolu moom dimbali suñu borom la mais musuma tiit ko soxna mi ngi nii toog moom mën na ma témoigner. ndax euh, en tout cas parce que man lépp lu ñëw ci man rek damay gëm ne lu jóge suñu borom la xam naa ni euh, dama koy nangu tamit nangu ko te xam ne dogal yàlla te suñu ma ko bañ bi ma waxee loolu ne ma léegi da ngay dem Dakar ko ah bisimilah acca mu ne ma euh, léegi ambulance baa ngi ñëw incha allah bu ñëwee daf lay yóbbu Dakar préparé nañ la fa nekk sa lal ak si lépp mu nga fa di xaar ma ne ko amul benn problème incha allah rabbi nañ dem léegi ci lañ dem yóbbu ma Dakar fan ma nekk fa pendant euh, quinze jours presque quinze jours daal quatorze jours ci quinzième bi ci laa génn euh, mais euh, di teel sant yàlla nag parce que alhamdulilah sama waa kër ñëpp presque mën nañ ne ñëpp amoon nañ ko ñu ci ëpp bokk mais alhamdulilah yàlla def na jàmm ñoom ñëpp ñibbis nañ ñu ngi au complet sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax wax yàlla mm-hmm. hmm. faj bi foofu naka la naka la tëddee woon au niveau de Fann prise en charge bi. waaw faj bi moom euh, dañ dañ ci doole sant yàlla encore ndax euh, macha allah docteur yi fa nekk euh, am nañ xarañte am nañ laa biir oyof nañu keroog ba ñuy egsee man ma ñëw man maa njëkk ñëw après sama soxna ñëw ci guddi yi ñu indi yeneen personnes yi ci ci ci le lendemain mais bi ñëwee ñëpp wax dëgg yàlla di jël nañ leen en charge dañuy ñëw di waxtaan ak yow guddeeg bëccëg dañuy ñëw heure bu ne dañu lay woo lu lay metti loo soxla loo bëgg wax leen kenn ku ne jox la numéro téléphone am di la woo di la wax loo bëgg loo soxla ñu jàppal ci wax dëgg yàlla ñooñu kenn amul seen pay seen liggéey rafet na euh, xanaa di leen ñaan yàlla yàlla dolli seen kàttan euh, may leen yokk seen xel ba ñu gën a xarañ ci seen liggéey ba li ñu ci bëgg a def yàlla dimbali leen bañ man ko garab yi ñu doon faje est-ce que am na niwaakinin te waxtaan ngeen ceeg lu mel ni professeur Moussa di wala amuloon loolu euh, no wax dëgg yàlla mënuma wax ni lii lañ doon faje loolu da bëgguma ko sax ne lii lañ ma faje wala lii ndax ñoom docteur ñoo ñoom ñoo xam la ñuy xaj faje ñoom ay kilifa lañ xam nañ seen i seen seen i matuwaay jël nañ ko ba mu mat wax dëgg yàlla def nañ lépp lu ñu war ci ñun kon boog euh, sañu ma taxaw fii naan lii lañ ma fajee wale fajewuñ ma lii daal loolu ñeme mu. looy tontu nag ñi nga xamee ne ñoom euh, jàpp nañ ne bi ngay dugg ci réew mi xam nga sa état. Euh, ne yor nga doomu jàngoro ji te yaa tey bi ngay dugg ci réew mi nga dugal ko fi. <laughs> waaw ñooñu ñooñu moom wax ji di ci bari parce que tamit xam nga ku xamul tamit xamoo. mais war boo laajoon ki nga xam ne moo dund mbir mi tamit yaakaar naa di nga ci mën a gën a xam lu gën a leer euh, li wér bi wóor mooy euh, man fu ma jógee région bu ma jógee jamono yu fa jógee euh, booba ñaari kaa lañ dégg ci région bi yëpp te nekkul ci biir dëkk bi ma jógee nekkul woon ci chef bi sax waaw dëkk bu ñuy jax wax ci Sénat ci Italie jamono yow ñaari kaa moo fa am te ñaari kaa yooyu nekku woon sax ci biir ci Sénat nekkul woon ci biir région région bu mag bi Euh, ci ci dëkk yu ndaw yi la nekkoon kenn ki dañ ñëwoon mu ngi yóbbu euh, dëkk bu ñuy wax Forli fa lañ koy interné woon ci hôpital Forli hôpital bu mag ba ke ci des mu dañ ko interné woon këram lañ ko bàyyi woon. lool lan ci liñ déggoon ci média yi waaw foofu nag laa ci mun a yem mais man ba ma fay wax dëgg yàlla boobu maa ngi ci jàmm maa ngi en bonne santé euh, ci yoon bi laa ko contracté parce que ndax euh, yaakaar naa si euh, feebar la buy wàllee boo xam ne si yomb na mu wàll nit ki lool. te kër ga ma jógee dëkkoon naa fa euh, mën naa wax ni dix personnes quatre personnes yi ñoo bokkoon benn néeg bu ñuy fanaan pendant deux mois et quelques jours ma fa def quatre personnes ñoo bokk benn néeg bu ñuy fanaan des fois ñoo fay yendu surtout bi bi confinement bi amee sax ñooy bokk di yendu ñooy bokk di fanaan. ki nga xam ne mooy sama xarit bi nga xam ne moom moom kër ga nag moo ne moom mooy moo doon moo moom kër ga mën naa wax euh, moom mu nga fa ak jabaram ak ay doomam te ñoo doon di añ di bokk di reer kon yaakaar naa bu mu fekkonte contacté na woon foofu feebar mën naa am dinaa leen ko wàll. yaakaar ñoom am nga xibaar ne ñoom. ñooñu ba démb rek maa ngi jot seen seen xibaar démb démb rek maa ngi jotante ñoom yàlla seede na ko kenn mus ci kenn amu ko ci kenn dara jotu ci kenn. kon amul teyef yow voie normal nga jaar. te dégg nañ ne sax test nañ la euh, voie normale la jaar testé na def naa test Maroc def naa ko euh, AIBD ñu ne ma ok jox ma carte ne moom bo lu la metti woote loolu ma waxoon naa ko dama koy répété. waaw tayef amu ci euh, man euh, sénégalais la yaakaar naa comme comme sénégalais yëpp euh, te am naa yaakaar ne am naa yërmande waxuma la sax d'abord ci sama njaboot lay commencé yaakaar naa dina du ma dem ba Italie dafa jël jàngoro bu toll ne bii am ñëw xëpp ko sama njaboot wala bati di ko xëpp ci biir Sénégal loolu aw ma yéene jooju waaw loolu moom aw ma yéene jooju boo boo déggee ñu lay décrire comme le premier Modou Modou wala le premier sénégalais bi dugal euh, jàngoro ci biir réew mi casquette boobu naka nga koy naka nga koy sole non casquette boobu dafa doon casquette bu bu metti ba indil ma émission eh, xam nu ñu ko waxte eh, émotion bu nga xam ne wax dëgg yàlla xaw na ma euh, jàppulum pendant trois presque quatre jours euh, ba dama mujj eh, même ci hôpital dama mujj sax man dafay sama téléphone dootuma wuyu dootuma woote parce que xawoon na ma mais li ma ci gënoon a métti nag mooy euh, sama doom bu jigéen dem école sentir boppam di métti mënut a jàng ñu bàyyi ko mu ñibbisi xale bu jigéen bi ko doon gunge sax tey moom tamit barki démb la génn moom contacté woon na ko léegi nag euh, élèves yi doon woote di jooy di laaj naan ndax euh, Bintamar dal na ko dalu ko dalu ko sama doom la Bintamar léegi euh, loolu nag bi ñu ko xam ne élèves yooyu tey euh, imaginal tey élèves yooyu bu ñu amee jàngoro bi ñoom ñëpp jëlee ko ci Binta. dina loolu métti. ñooy ñooy jéglu bu baax a baax euh, par rapport ak ndimbal yi nga xame ne wax nañ ne également egsi na ci ci ci ci yow ak ci sa njaboot par rapport ak faj bi ngeen doon faj jàngoro ji lan nga ñu ci mën a lan nga ñu ci mën a dolli. ndimbal moom euh, ñu ngi koy dégg comme ne ko nit ñi di déggee euh, waaye yàlla dogal nag gisaguñu ko gisaguñu ko nag mais nag ñu ngi koy dégg parce que gis naa ci surno yi dégg naa ci rajo yi ñu wax ba ne euh, Serigne Mountakha jox na Modou Modou bi tonu ceeb ak ñeent fukki fukki junni. loolu duma ko wedd ndax sëñ Mountakha lu ñu ne jógee ci moom moom gëm naa naa ko lool ah mais euh, xëy na mi ngi ci yoon egseegul bu waree egsi dina egsi incha allahu rabbi waaye daal euh, benn ndimbal bu nga xam ne ñu ngi koy wax wala ñu ngi koy wax ci rajo yeeg journaux yeeg télé boobu ñu man sama bopp gisuma ko dégguma kenn laa fi gis ndimbalam mooy euh, waa service d'hygiène ñooñu daal seen commandant wax dëgg yàlla andi na fi ay ay carton yi eau de Javel Madar wax dëgg yàlla kooku moom ñu ngi ko sant di ko gërëm euh, gars yi mi fi ñëwoon barki dem sax bi ñu fi pompé dama ne woon euh, temps yi comme dafa xat nii waaw ah, peut-être mënuma dem këram mais su fekkonte ne mën naa dem ci ci ci bureau ba dinaa dem sant ko ci gërëm ko parce que geste bu rafet la def. ku la bëggoon dimbale également jëm ci nguur wax mën dimbal yu kii yi mais xëy na jëm ci nguur ci aide yi muy joxe loolu loo sàkk woon la peut-être. non euh, man wax dëgg yàlla mosuma ni kenn nañ ma dimbali ci nguur waa ci nguur wala ku mu doon mais dama jàpp ne euh, sénégalais la te ñi mu dal ci Sénégal du man yaakaar naa ne bari nañ euh, d'accord borom familia lépp lu nga xam ne jóg na ci jëm ci ñi nga xam ne moom la laal ci Sénégal ak ñeneen ñi mu laal ak képp ku ci war a ku war a dimbali Sénégal bu ma ci bokkee tamit ma xam ne ci laa bokk. Sénégalais laa comme tout le monde. est-ce que xam na ne dëkk bi nga ñëw am na ñoo xam ñu ngi kon ne ba léegi di weddi jàngoro ji am na fi yow euh, lan nga leen mën a wax. Euh, waaw am na ñu koy weddi bari na bari na trop sax ñu koy weddi waaye nag euh, xëy na ku ko dundul di nga ko weddi mais man mi ko dund dund kook sama sama njaboot maanaam 28 membres ci biir kër gi. nga xam ne euh, yaakaar naa vingt huit yi kan euh, cinq rek ñoo ko ci amul. waaw vingt huit personnes yu nga xam ne cinq personnes rek ñoom la ci yàlla dimbali ba laalu ñu laalu leen kon man kenn mënul taxaw ne amul fii ci man ba ma ba ma ànd ci wala ma d'accord ci lu am la lu leer la. Euh, li ci am daal mooy képp ku nga xam ne yàlla dogal na ne gëma woon ne amul maa ngi lay ñaan nga génne lool te xam ne feebar bi lu am la li ñaan yàlla nag nit ñi jéem cee. Euh, jël seeni matuwaay bu baax a baax te gën a moytu te xam ne lii lu am la lu wér la nañ gën a moytu te xam ne lu am la euh, foofu sax dama ci taxaw tuuti euh, nuyu président de la république sant ko bu baax a baax ñaanal ko moom ministre de la santé Diouf Sarr président république moom maa ngi koy ñaanal yàlla maanaam dafa su sumb xeex bu rëy rëy rëy xeex bu rëy nag bi mu sumb nag liñ ko ci ñaanal yàlla may ko ci ndam ndax bu ci amee ndam ndamul Sénégal la te ni taxawaay bi mu ci taxaw bu ñu ci jàppee ñun waa Sénégal yëpp euh, gëm naa ne dina ci am ndam te boobaa ñun ñëpp ñoo ci bokk am ndam. mais est-ce que gis ngeen ni ñu koy xeexee nii Sénégal nguur gi ni mu ko jëlee nii est baax na. waaw ci man sama gis-gis de wax dëgg yàlla euh, jëlin bi baax na jëlin bi baax na lool parce euh, tey. mën nañ ne jëlin bu baax moo tax tey fii ci Touba ñuy wax ni euh, seroka wàññi woon tey bu jëlin bu baaxul woon bu amoon néglisance tuuti rek xëy na euh, kon du du dana romb fii kon donc jëlin bu baax a baax lañ ko jël xam naa ne daal euh, ñu ngi liggéey te dañu ñaan yàlla yokku leen na yàlla dolli leen waaye wax dëgg yàlla man li ma gis ci sama bopp daal Euh, liggéey bi rafet na. askan wi nag est-ce que dañ ci war a jàpp raxasu moytu takk ay maas. waaw mooy mooy li ma nañ nañ jàppale euh, président ci xeex bi ndax xeex bi xeexu ñëpp la mais comme président tey moom la yàlla jiital ci kanam askan wi. Euh, mu jiite xeex bi ñun ñëpp dañuy war a taxaw ci gannaawam ànd ak moom xeex ndax xeex ndax li ñuy xeex jógee fi bu defee Sénégal gépp am jàmm. jërëjëf ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax. waaw léegi bëgg naa sant mbooleem Euh, sama njaboot gi nga xam ne na juste ñoom ñëpp tey e, affaire bi laal na leen mais ànd nañ ci ngëm yàlla e, doyloo yàlla suñu borom kenn néewu ci ngi kenn amu ci looy tiit ak ragal xëy na émotion yi ñu doon am du ragal e, feebar bi la mais émotion yi doon li doon dox ci biir dëkk beeg ci biir koñ beeg def yëpp loolu moo tax ñoo amoon émotion yoo mais ragaluñu ko woon parce que doyloo nañ ci yàlla bu baax a baax sant yàlla nag di sant euh, mboolem Sénégal yi di leen masaw di leen balu ak tey dama ne bu fekkonte ne mën naa taxaw ci bépp sénégalais. message bi ma daal dama doon bëgg sant di gërëm di wax ne bu fekkonte ne tey mënoon naa taxaw ci bépp sénégalais. ne ko jéggal ma daa ko jëf. ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant euh, comprendre ngeen émotion bi ñu defee interview bi mu nekkoon euh, Yaram Maar euh, nekk Modou boobu nga xamee ne kon moo jóge woon itali développé doomu jàngoro bi di coronavirus ñu amoon entretien exclusif ak moom fi ci diwaan bu Touba di leen gërëm bu baax a baax di leen sant jërë ngeen